naka ñooy dem. ay déet honorable. waaw ñu ëpp jom ñi fi am nañu jom di. waaw ña ngay waaj <laughs> ña ngay waaj dañoo amagut pochette dem eh, buñ koy am di dem eh, Sénégal ndaw ñëpp am jom daanaka. Hmm. daanaka eh, li gën a garaaw ci dem bi mooy ñàkk yaakaar yaakaar ju tas parce àddina lu mu tolluwaay lu mu metti metti metti metti su dee yaakaar a nga fa yaakaar de mooy ëpp doole metti waayu mm-hmm. euh, tolluwaay ba mm-hmm. waaye bu yaakaar taxoo moom dara desu fa pour man loolu moo gën a metti ci sama xol euh, ci ci ci ci vraiment dem bi parce que ça veut dire que il n'ont plus qu'espoir amatuñu daal yaakaar loolu euh, la ñu war a jëkk jëkk jëkk régler ci réew mi évidemment dafay dafay dafay firi itam tolluwaayu koom-koom bi firi tolluwaayu euh, coono yi nit ñi firi li muy firi daal lépp lay firi mm-hmm. ma kumba mm-hmm. kon nag noonu laa ko jàngate en tout cas euh, am na